Música kanamam xare ko aljana ndax bari na loo xamante ni def na ko fii ci jéggi raay bii waaye nag mbokk yi tey ki woote fii moom mooy Filta Sadio Filta Sadio mu ne ko wax te waxoo yeneen champion ñu ngi ci ginnaaw taxaw Filta Sadio bu muy mujj arène nationale am na nu mu demee waaye adversaire am tamit bu muy mujj foofu ci arène nationale am na nu mu demee ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk muy combat yërmande muy combat weddi tuuma waaye Fils de Sadio mi ngi nii war a daje ki nga xamante ni moom mooy ah bébé garga us garga waaw moom mooy bébé garga us garga moom la Fils de Sadio di dajeel mu yemoog la 14 samedi bii di ñëw lu waay doon jaay tey mu jeex le 24 Ouzin moom moo ni woo Ouzin production borom mercredi mais Fils de Sadio addinaa ngi lay seetaan ñëpp ngi lay seetaan Bantamba TV Kewel Info ah Mato Jaara yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog Sénégal nuyoog àddina waaw baa ma nuyu naa la ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant gaa yi nga xamante ne ñoo fi teew ñëpp di nuyu presse bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu suñu parrain Ablaye Kane xam nga ak délégation bi mu àndal yëpp ñoom mbay ñoom Bouba gaay yëpp di nuyu suñu njiit suñu lépp muy monsieur le maire Issakha Diop nga xam ne mosuñu seetaan si dara xam nga heure bu ñu gëstoo gis ko ak lu mënti xew waa dañ koy gis mu ñuy taxaw si lépp waa di nuyu ñi nga xamante ne ñooy sama encadrement di nuyu ñoom am xam di nuyu Ñambe Zallo Cheikh Sarr xam nga ku si mel ni ñoom Laye Fall ñoom Abdou Rassa di nuyu sama gars yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñoom Modou ñoom Soulay xam nga ñoom Ousmane Faye ñoom Abdou Wahab mafia bi gawari maa ngi nuyu ñëpp waa Paris Icotaf bi xam nga waa Tali Karo bi tamit ñoom Maas xam nga gars yëpp daal ñoom am de waa mafia jaafiraaf bi waaw maa leen di bu baax ñoom xam nga parce que xam nga ñoom Pape Ndaw ñoom Tafa Naar mm. mafia asalem bu baax a baax ñoom Seexaar gaa yëpp dañuy nekk ba asalem bi ma bëggee waaw di jugee asalem di ñëw fii ñoom Seexa xam nga ñoom Tip Seck Habib ak Mowa gaa yëpp daal maa leen siyaar waa Caaroy ñëpp maa leen di leen siyaar bu baax a baax a baax. jërëjëf loolu mooy nuyoo ki nga xamante ni moom mooy fils de Sadio mais fils de Sadio yaa ngi war a daje koo xamante ni fan lay bàyyi ko parcelle yaa ngi daje koo xamante ni wax naa la ko léegi bi muy mujj arène nationale. dafa ñàkk comme yow tey dégg nañ ko mu ni yow taxoo koo jóg laataa ñuy sori ci waxtaan bi lan ngay wax ci loolu. waaw gars comme lu ñu wax rek lu waaye waxoon na sa delluwaat le 24 incha allahu rabi bu arbi ne prib lu waaye waxoon incha allahu rabi na sa delluwaat waaw loolu laa am lu ma koy wax. nee na duggoon na biir am fi ndam te deuxième ndamam fii ci ginnaaw raay nee na ci yow la bëgg a jaar. lolou dara man tamit déggu parcel am fandam ndam fandam lolou dara kon de deux lay nek na ñew ñu beure rek ñun ñaar ño wara beure xam nga ñun ñaar ño wara beure da am ci lu mu jugee am ci lu ma jugee jarul ñuy nek fi di wax li ñu war ñun ñaar ñep xam nañ ko man bok li ma war xam na inshallah rabbi le 24 ma def du lu may nekk di wax dama ko wara jëfé comme li am di wax jarul may nekk di wax dama nga jëf na gis inshallah dina jëf daal gis. ko dégg tamit mu ne arbitre bi mo mo la fi bàyyi. waaw le 24 yàggatul moom mënuma ma wax loolu lu ma bëggul wax l'essentiel daal yàgg yàgg métti métti tardé tardé arbitre dina na périm incha allahu rabbi mais est-ce que fils de Sadio pare nga pour jàkkaarloo Bébé Garga sampu jaaga xeex ak moom am njaay joxul jur Bébé Garga dinañ jàkkaarloo dinañ jàmmaarloo ñun ginnaaw raay lañ dëkk doomu ginnaaw raay laa doomu buur askan amul kenn bu may représenté bu ay ragal nekk waaw di nuyu bu baax a baax Jackson Junior combat bi mu taxawee ba léegi barke Serigne Touba dama dem Kallem suba ngoon ñu koy ànd di entraînement suba ngoon guddeeg bëccëg di nuy Eumeu seen bu baax a baax a baax xaalis bu bëri lu ne lay yëkkati di ma ko jox ñoom saa boogal gars yëpp suñu waa écurie ñoom Zo ñoom Naar ñoom Baye ñoom Modou Ba prince mo koy nuyu bu baakha baax di nuyu ñom xam nga Ibou Param ñom boy waranka ñi mbëru ginaara yeb di nuyu pap sen di ko ñaanal ndam di nuyu Papa di ko ñaanal ndam di len ñaanal ñom ñëpp ndam inshallah sandana yi gaay yeb dal wa magasin be gaay yeb wa xam nga directeur isa esat bi esat Alsane Djigo sandana ko baax geureum ko bala ma def dara sax dama waron jox xam nga Ablaye sama parrain mu wax ah mu koy jox cadeau gi mu wax rek après ñu ko ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sama frère. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki département de Pikine salaamaaleykum la commune de Pikine Est. Euh, sama tur maa ngi tudd Abdoulaye Kane je suis directeur de cabinet du maire de la commune de Pikine tey dama fi ñëw def une pierre deux coups. dama ñëw représenter le ministre maire Isaac c'est le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations. je voudrais à l'entente de mon propos remercier mon frère le jeune leader, Ngaraf qui m'a permis choisir comme le panel de cette open presse. c'est le moment de dire un grand merci à notre frère Il dañ fi euh, une forte délégation accompagnée par les attachés du maire mën nañ si lim Bouba Ndiaye mën si lim Omar Sadio Mbaye Diop ak Aziz Ndiaye ak Balaay di wax ni tey dañ fi ñëw pour jàppale soutenir suñu frère Ngaraaf dafa nekk suñu jëmm yoo xam ni nekkul sax suñu mbër mais dañ koy xoolee comme ko jëmm juñ bokkal ndey ak bàyyi parce que tolloon na si ay jamono yoo xam ni yombul woon pour nga ànd ak doomu aadama dafa taxawoon ku joxe bakkanam ngir suñu jëmm yi ñu nga wax ni ñun amuñu sa fay franchement dañ lay ñaanal nga am ndam lu sedd guyu guyu si kaw bébé garga inshallah bu bul la yow yalla dalay fay sa xol pour ne pas monopoliser la parole damay baye rek ñu ñu continuer open presse bi puisque temps bi dafa xat ñi ngi jégalu aussi ci yéex a ñëw bi dañu nekkoon ci ay xat-xat rek mo tax di la wax ni on est de cœur ak yow lay ñaan tam lu seet merci beaucoup mais euh, maire yi maire parcelle ñom nee nañ pare nañ pour jënd sept tickets jappalé ko sen dom set blocs pour jàppale ko sen dom yeen fan lañ leen mën xaar. waaw sante yalla parce que ñun mom ko xam Issakha Diop ak euh, lutteur yi xam ni c'est le meilleur maire c'est le meilleur ministre bi nga xam ni si côté lutteurs yi moom moo si meilleur. tay ngaraf mi du tay lañ ko jappalé xeyna c'est la première fois. comme buñ ñëwé assurer intérim mu ministre comme nek son directeur de cabinet au niveau de la commune tay ñun personnellement dañu ñëw indi suñu apport personnel financier ñëw jox ko ngaraf lolu ñun la. mais li nga xamni tay kilifa gi ministre mom moy ñewal bopam am te lolu mom xamna ci dara te dañ ci ñew du yag dara dara parce que ni nga ñewé en tant que maire di ministre lañu ñew ñewu ministre eh? ñun duñu wax lu ñu def mom xamna ci dara eh? ñu nga wote wa di bu baax xam nga di kontaan si ñepp di kontaan di nuyu sa papa bu baax baax sama yaay xam nga sama mbay combat bi combat am la waaw am yaa ko fa xam baaba xam nga Mor Mor bu Jackson daa bàyyi yitteem yëpp ñëw fii nii waaw di nuyu gars yi yëpp yëpp yëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp si combat bi yëpp yëpp yëpp maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa koñ maire ñoom aale xam nga ñoom maam buuba maam buuba ak jabaram xari xam nga ñoom ulay ñi fi nekk ñëpp ñoom aale fi yor xam nga ma fi yaa jigéen ñi daal ñoom aale ñoom ayda xam nga ñoom mama ñi nga xamante ne ñoo nekk koñ ba yëpp xam nga di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw mafia bu ko saafali beeg mafia yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen woo le 24 yi di woo bu baax di nuyu tamit sama tëggkat yi xam nga ak sama waa Gàlle maire naare ñoom ci loog ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk yëpp di nuyu sama yaay bi nga xamante ne moo ngi fii tout près di awasaar maa ngi koy nuyu bu baax baax ba ma nekkee xale ba léegi si moom laa nekk di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi teewoon ñëw waaw asalaamaaleykum eh, léegi Bébé Garga mi ngi jàkkaarloo ak yow lan nga koy wax sa kàddu bu mujj na waa daal le 24 incha allahu rabi dina bëre dina xeex incha allah.